طوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس يعني انت بنا نتخي نيل ني تومرانكي ني نكو نيل مولا الذين يصلحون موي ني دفر لي نيت ياق سو بوغي دفر لي نيت ياق بارال نك غا جاي سا غيناو جاي سا ديغ دف لا نلي تودي كو ريو لا نلي تودي دانيو لاي ساغا دانيو لاي واخ لو نك واي خولال دوخال كيس غا ليغا اندال كو اندك موم ياي نتا كانم واي بيس بو راغالي فوك ني نديرني تي نيت ني لا نك النصر والتمكين laysa fi yadin nas nekul ci loxo nit ñi de bul tit sa bakkan kenn yoro ko sa bakkan kenn moomu ko yalla ko mom heure bi mu nammee nga de ci ngay de na kat yi jóg nañu njabar na kat yi jóg nañu wax nañu bon jóg nañu wax ba sol duñ ci mun dara te bis bu ñu la rayé fukku ñu mel yow danañ judduwaat moo gis nga ahlu sunna da ngay gëm sunna parce que yalla ko santane nga xamni fi yonent bi jaar bo fa jaaré wala problème amoo problème yonent bi ay mbokkam dem nañu ba embargo ko trois ans ci cheikh ba abou talib waa quraysh dem nañ ba ñu ku ànd ak muhammad bu leen jaayanteeg moom bu leen jëndanteeg moom suñu soxlaa bu leen leen jox wallahi jullit ñi ak yonent bi sala yonent bi di tëju ci néegam di ñaan yàlla ay bëtam di taa saxaaba yi di xiif bay lekk xobu garab wallahi ladi la ilaha gayru di xëcc xobu garab di ko lekk ba yalla defal len ridwan yow nga bëgg sunna ne bëggo kenn mer nga bëgg dund sunna ne do wax aqida nga bëgg dund sunna ne do wax sunna su ma ko waxee ma samba mer man da ku qul mutu bi xayrikum mer len sunna sunna yalla la yalla ko mom keneen moomu ko su ngeen ko waxul ñeneen danañ fi ñew wax ko parce que loolu ñu wax yalla wax loolu mom moy am kon mbokk yi mi ngi ñuy bëggal bokk na ci yow jigéen ji yaa ngi ci xurba saaniya natt yi ngay dund muñ ko fan yi damay recevoir ay appel ci ay jigéen yuy am naqar di ko wax ba sama yaram day daw yow sëriñ bi papa nga papa mi ngi yem ci yilif doom waaye ci diine yilifoo ci sa doom lan mooy ci diine yilifoo ci sa doom mooy gis nga li yàlla santaane bis bu ko papa opposé papa saay-saay la li yàlla santaane bu ko jëkkër opposé jëkkër saay-saay la li yàlla proposé bis bu ko jabar opposé jabar saay-saay la lan laa bëgg a wax yàlla subhaanahu wa taala dafa jigéen digal jigéenu jullit mu muuru yow góor gi amoo ci benn dogal yow jëkkër amoo ci dogal yow papa amoo ci dogal benn dogal lan moo ñu lor nag parce que suñuy kilifa seeni waa kër du ñu muuru loolu moo ñu di problème bi suñu kilifa diine yi seeni jabar du ñu muuru seeni doom du ñu muuru seeni yaay de muuru woon nañ ndax seeni photo dañ koy gis waaye tey ngay toog xalif général toog jabaram meesu greffage génn ci benn centre greffage ñu greffé ko mu génn toog su ko defee Fatima boo ko nee muurul mu ne du ma muuru parce que jabaru sëñ bi muurul effectivement parce que loolu lañ ko gëmloo parce que sëriñ bi moo taxawul ci yonent bi taxawoon tey da ngay taxaw nga gis kilifa diine sëriñ mu yëkkati loxoom jox ko jigéenu jàmbur lu xaraam lu xaraam nga ne teg boo nee joxe loxo xaraam nañu ne ah pourtant sëriñ bi def na ko de kon kan mooy xeex diine. ñi war a taxaw nekk ambassade islam ñi war a taxaw nekk ay ay ni ñu koy tuddee te xeex islam bu fekkee ñooy xeex islam kon islam moo am problème problème islam boobu nag ak zulm wa saxaar mi ngi dellu ci ñu waroon a leeral mbir mi te leeral nañ ko papa nan la mën a fitnaalee doomam ci sa doom day muur sa doom bu jigéen tànn na muuraay di ko def nga ne ko doo ko defee sama kër te am ñu fi nekk di greffage di dugal ay góor ci kër yi di génn di seet ay góor yow papa nga ne ci càll nekk yambaru yooyu. waye dal sa dom bu muuro nga kaas fi fii du dafa muuro wa keur serigne diw la wa keur serigne diw kon la am ci islam amu ci islam kon yow jeuker soxna fi mang lay jeuk wax d'abord muñal ba pare so muuray bi ñu lay xex muñ mo lay jàllale de legi tànn mais tol lay temps defon na ben khutba ci maryam Fall yàlla yàlla yërëm ko yóbbu ko aljana ci lu melni la ko ay mbokam xeexee bu mu génn aduna ci muuru rek lañ ko le fitna kon fasbiri yaa amatallah والعاقبة للمتقين منل يو جام يالا بجيجن بي لا تغرنك الدنيا وما فيها بلا عبد النور بالله الذي لا إله غيره جسنا يو جكر يو بابا امال تي فينغا ورايم فينغا موي يو بابا امنا لولا يالا جوختي كليفتيف waye amna lo xamni li ci walu jaamu yàlla motax borom bi ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm lu ci yàlla tek fala tutihuma yàlla ne la sa papa loo ko beug beug lo bax bax ci mom ak sa yaay buñ la beugé teralu yàlla digle wala lu muhammad digle né len ma bañ kérok ma bañ moy am yar sa kanam papa kérok ma bañ moy dégg ndigal sa ndigalal papa sa papa rek bu yaboon a mer la yek asaman la wàcc kenn la ci nit ñi yàlla ko binda sa papa seytaane ànd ak moom moo tax muy bañ muuraay sa jëkkër seytaane ànd ak moom xam leen ni mbokk yi muuraay mi ngi jóge min fawqi sabi samawaat jaa bihi jibrilul amin ci juróom-ñaari asamaan la bàyyi ko jibril ko indi comme ni mu indee suuratu baqara xaytu qaala allahu taala fi muhkami kitaabi yaa ayyuha nnabiyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaai lmuminin ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يلا نمكمي مكبي يرانت بلكم يكوخ جمال بوبي آي بي واتي واكر يرانت بي موروني موروني ون يلا يا أيها النبي أي يو يرانت بي من ها من قل لأذواجك وخل سي جبر وبناتك أكسيدومي دومي جيجين ونساء المؤمنين